ñoom nee nañu am nañu ndam mu ngi ñëw waa géej waaye nee nañu ñoo am ndam am ndam sant waa géej waay waaw wala mu ñëpp xam nañ ne dama am ndam taxawaay bi tey nag euh, loo ko yëgee taxawaay bi tey waaw ma wax lamb ji waa Géejawaay ñëpp dañ ma sas waa Géejawaay ñoo ma sas tey du daanu amul daanu tey dee maa daan maa am ndam rek dee maa am ndam rek dama xam nga bëriwul mooy loolu dama xale laa xam nga mais gis sama ginnaaw ma bëgg ma ñëw saaraaxa bis du ma ko def xeex naa bëre naa def jong fula ak fayda du ma sama combat yóbbu moom sax maye pour mu yegg fenn pour ñu bëre mais chaque jour la déggee nii la xam nga waruñu ma avertir maa xeex moom maa bëre maa xeex maa ngi bëre mais xam nga booy ñaar c'est la première nii mais la déggee yàgg naa may nii xam nga na góorgóorlu bëre lamb foo ak reera mais nga ni mbooloo bi ma topp may jaay sama combat may def jom fu la xeex bëre bilaa walaay jërëjëf